wax naa fa wax naa ci benn bis ni guddi dañu toog mu ne ma sëriñ Babacar ma ne ko labayk mu ne ma jógal tëri may jóg di tëri mu ne ma fooy tëri ma ne ko papa sunu kër mu ne ma yaa ñeme yàlla ah sëñ Babacar fooy tëri ma ne ko papa kër mu ne ma yaa ñeme yàlla sëñ Babacar fooy tëri ma gag mu ne ma ah, fii de samaam dëkk fi daf fi jaaroon rek yàlla ni ko toogal fii xaaral ma fi sama jaam yi lii nag jaam yee ko moom ku jël si wàllam jox ko boo fi amee sañ-sañu am fi kër nag da nga koy bëgg moomale sa bopp te bu boobaa kenn du ci mën a jot kon lii ngeen ñëw ñëw ba Tiwaawan di ñu ko sant si yéen ko moom la yor foofa du yëfi sant si du yëfi sant wele du yëfi sant jóob du yëfi sant mbàkke yëfi yàlla la te yëfi yàlla jaam yépp a ko bokk bi ñu yàlla mayee ngeen ñëw wax ak ñun ñu ne waaw waaye yàlla di sàmm kàddu lenn lu ci nekk nag jaar na fi ndog ndog bu nekk jaar na fi ba démb moo ci mujj waaye yàlla defal ñu sutura démb dama jóg rek sama tànk bi néew yi ba mënuma koo teg fenn ma ne ah, man de waxoon naa waaye wax bi day xamoon na lay defa sàmm ko ndeke yàllaa ngi def sutura fa tabaarakallahu ba li ñu waxoon sotti kon alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax nag julli nag ci ki tax ñu daje muy sayyiduna muhammad yëg ngeen ni loolu Mansour foo ko waxee nit ñi weddi ko boo ne da ngay julli ci yonent bi nit ñi dañ koy weddi bi ma ne julli ci yonent bi lu ngeen wax kon dootul man sallallahu nga wax yàlla julli ci moom ndax yàlla rekk ko xam dëgg la bari nañuy binde wa salam ala rasulillah waye ki xam deug deug sayyidina muhammad mo yàlla la ya'rifuhu illa allah sunu borom rek ko xam motax sen mam waxna ci lu nek cheikh alxaaji malik mak ñi waxnañ ci lu nek waye dafa melni ni puso ba ci géej la ci génn la ci moom ñu wax la ñu xamul ci yonent bi bari na lool moo tax innaka la ala waxul la alal xuluqi la ala xuluqin ku ñëw di ci wax waaye doo ci mën dara kon ñu ngi julli ci Seydina Muhammad ba tey yàlla ñu yàlla wuutu bokk ci jullil ñu ci yonent bi nga xam ni mooy lépp julli gi ñun ñëpp dañ naan sallallahu alayhi wa sallam te mag ñi ne nañu man lam yusalli ala alihi fa salaatuhu salaatun batra ku julli ci yonent bi te boole woo ci njaboot ga njulli ga du danañ ko nangu waaye du mat na mu war a mati ndax nit ku nekk nag njabootam la am kon sallallahu alayhi ba mu jeex la salaata lahu ku julliwul ci njabootu seydina muhammad julleem àggul fenn bu ko defee nag sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu tàmm ñun ñëpp waaye sallallahu alayhi wa ala alihi yàlla ñu ci yàlla nangul ñun ñëpp yàlla di watat julli googu xéewal gi ci nekk gi mu ëmb di ko watat di ko watat di ko jaarale ci mag ñi di ko jaarale ci mag ñi ba boole ci sunu péncum tey mi yàlla na ko ci yàlla boole waaye man damay wax ni ñu bëgg bokk nañ ci ñu bañ bokk nañ ci xanaa dañuy tuuri ñu bëgg bokk nañ ci ñu bañ bokk nañ ci xanaa dañu koy tuuri ah dañu wax ni sallallahu alayhi wa sallam ma bu ñu bëggee bokk nañ ci bu ñu bañee bokk nañ ci ci xéewal googu xanaa ñu tuuri xissa boo xam ni Seydina Muhammad moo ko nettali ci xadis al qudsi mbooloo moo xam dañu toogoon di tudd yàlla di julli ci sayduna muhammad malaayika yi ñëw tiib leen di dem di dem ba mbooloo ma tas ñu dellu ci sunu borom te sunu borom a leen gën a xam fa ñu nekkoon laaj leen lu xew ñu ne ko ñun de dañoo romboon say jaam yoo xam ñu ngi la fanaane tudd ak sa soppe bi nga xam ne yaa ko bind yónni ko ci ñoom yàlla ni ñi day texe nañu mu laaj lu ñu bëgg ci gàttal aljanna la ñu bëgg yàlla ni am nañ ko lu ñu ragal safara yàlla ni mucc nañ ci ñu ne ko ah am na ñaar ñu fa jaaroon di bokkuñu fa waaye dañ fa jaaroon rek taxaw tuuti déglu mu ne ulaayika la yashqa ah jalisuhum ku taxaw ak ñoom doo torox mukk looloo tax ma ni kon jataay bi xanaa bañ waaye ku bëgg am nga ku bañ am nga xanaa nga tuur yonent bee tax nag yonent bee tax ma wax yëkkati kàddu googu waaye yëkkatiwu ma ko pour maqaama benn doomu aadama bu dul rasulillahi yonent bee ko jar moo tax yàlla di ko ko defal moo tax yàlla di ko ko defal moo tax dañuy wax ni ki gën a soxor te nay ci boppam mooy ki dégg tur yonent bi te julliwul ci moom ma nettali leen ci benn xista rek bu ma ci dal xam naa ni tey moom guddi na damay waxtaan ci jàkka ja laylatul qadr man mawdo si ak mom gor gi may wax rek nan Muhammad Muhammad ndek gor gi jotaay bi sof nako bu yag bu nga waxe rek ni Muhammad wax ni Muhammad gor gi jotaay bi sof nako bu yag mu tok ba si mu ne papa Alaaji Kebe maktar yobuma ma waji maktar yobuko ba mu ag ci keur ga mu dal ni maktar seigne babakar togn na ma tooñ na ma di def direct ci turu yonent bi naan Muhammad tooñ na ma fekk ñu mag ñi nag ñoom ñu naan waxtaan wi seet tët tët ma defal ni nag man maa toj <laughs> ndeke man tojuma dara Maxtaar wax ma ko rek ñëw wax ma ci boobu maa ngi ci jàkka ji mu wax ma ko ma daw dem ci góor ni ko papa mu ni ma déedéet nee ma Abdul Aziz rek comme que yaay sàllalu yonent bi kañ ba ma waxati mukk mukk euh, ma waxati mukk pap mu ni ma yenent bi yaa ayyuha rasul la yàlla wax yaa ayyuha nabi yaa ayyuha muzammil yaa ayyuha mudassir yow ngay def direct ci turu yenent bi naan Muhammad bu ma waxti mukk Abdul Aziz bu ma waxti mukk papa de ma wax Abdul Aziz rek mbir yi tàng lool ma def ci ñaari fan yu metti lool bu ma ñëwee nuyu ko rek mu ne ma léegi li muy di jaayanteeg yow mooy da ngay dem jàngi alquran ma seeg ndax yonent bi jéggal jéggal na la wala déet rien que rek ngir fonk sayyidina muhammad te yonent bi yalla ko fonkal bopam yalla ko fonkal bopam la wax nan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin kep kuy bañ ñuy wax sayyidina muhammad rek yaa ci erreur ndax amna sax yu ko yu nuru turu sal sàll nuru turu sal lu direct te dedet mission ba tax kon yonent bi ku for la ku defé nak yàlla ñu yàlla defal xéewal yàlla jàppale ñu bu baax a baax dolli sutura bi di yëkkati kàddu nuyoo nag di ko teg ci loxol imaam ak imaam yi fi nekk yépp ak doomi soxna yi fi toog yépp di ko jële ci seeni mbokk seeni xarit seeni soppe muy njabootu Seydil Hadji maalik ci ci ci ci waxin waaye Seydil Hadji Malick li mu yor njaboot ku ku mu njabooti njabootu yàlla nga kon ñun ñii ñépp njabootu Seydil Hadji Malick lañu jëme ko it ci mbokk jullit yi fi toog yépp bàyyiwuma ci kenn bàyyiwuma imaam ma sama mbokk yi fa tabaarakallaahu ak ñi ma fi gis ñëpp ma fa tabaarakallaahu sama sëriñ dañ koy wax léegi mu ñaan mu gàntal ma ne ko ah ñaan gi de fañ ko jëlee dafa sori ba sunu maam ma yoro sëfee mbaamam moomu di seetu Cheikh Umar boobu Seydi Hadji Malick juddoogul boobu la ñuy yëkkati tariqa bi teg ko ci loxoom bu Seydi Hadji Malick bàggee mu jox ko ko te kii juddoogul xamal ko ni soxna sa kat am na wan na lor waaye bu juddoo nangam ak nangam nàngam ak nangam te wa cheikhu tawqiruhu min tawqiri kulli lladi min xawlihi yaduuru waaw xormaal sa sëriñ mooy xormaal lépp lu ko wër waaw fi mu toll nii am na ñoo xam ni seen xorma ci jàkka mooy ñu dugg ci biir jàkka ji foofu foofu xorma amatu fa xorma baa ngi ci ëttu jàkka ji avant ngay dugg ci biir jàkka ji boo xormaalul ëttu jàkka ji boo duggee ci jàkka ji soog koy xormaal yàlla soxlawul wa man yuazim xormatillah kon dangay ngay xormaal ëttu jàkka ji bala ngay dugg ci biir jàkka ji jàkka ji weesu na xormaal ndax néeg la ba tax na kon képp koo xam ne kii rek tabaarakallahu ahsan léegi nag euh, ngeen baal ma xàq ak taalibi jafe na ak taalibi jafe na yii taalibi jafe na ak taalibi jafe na jamono bii ñu toll ñëpp a ngi yor kurus yi nag di wer dëkk def lu nekk waaye taalibe moom taalibe jafe na li ñuy wax taalibe taalibe jafe na xam nga doo taalibe doo taalibe sëriñ bi taalibe boo xam ne bi day wut jëfi yàlla sëriñ bi moomul li ngay wut ci moom keneen a ko moom te kooku dafa am lu mu koy jaayee ku àgg ci kaw du la ko jaay yàlla ku yéeg ci kaw du la jaay dara dañuy wax ni kañ ngay jege yàlla ah xaalata asujud wasjud waqtarib aqrabu ma yakunu abdu inda rabbihi wa huwa saajid waaye nga dëpp sa jë ci suuf looy wax subhaana kon action bi ak wax ji lu ngeen ko gisee ah wuute na yaa ngi dëpp sa jë ci suuf naan maa ngi tudd sellu borom buur bu foo nekk yow kon ndeke ku àggul ci suuf doo àgg ci yàlla mukk ku rëy doo dem fenn moo tax rëy lu jara summi la ci nit gisoo am na bàkkaar bu gën a araam njaalo mooy julli yëg ci sa bopp mooy julli yëg ci sa bopp boo ci yëgee sa bopp rek yëgatoo yàlla fi mu toll boo doon laaj tey ndax gis ngeen yàlla ñu bari dañ naan xaraam na ak yàlla kenn mënu ko gis waaye féeg yaa ngi fi di yëg sa bopp doo yëg yàlla mukk féeg nit a ngi fi di yëg ni mu ngi fi du yëg yàlla mukk du gis yàlla mukk am na seen góor gi lu mu waxoon lu jiitu abdan zalilan abdan faqiran fu mu ko waxeeti woon sax am am na lu ko jiitu déedéet déedéet lii mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci taay fala budda min shakwa ilallahi kurbati déedéet tabaarakallaa foofu la nekk daal jiitu baadiya zillati déedéet boobu bo am na bi may wax ko gën a suufe moom moom nit ki bu bëggee àgg ci yàlla rek bu yëgee boppam du dem képp koo gis mu yëg boppam rek du dem ñu leen di bu baax a baax li nuyoo ëmb yàlla nañ ko yàlla defal nuyoo jàmm jàmm jàmm am na ndey ak hmm. jàmm balay am dafay am lu ko jiitu ah li ñuy wax tum anina al i'tidaalu dañuy wax dal ak yamoo ci faratay julli la bokk ku dalul yamul dana mën a julli kon dal ak yam ñooy jur jàmm yàlla gu dal gu baax ku dalul doo mën a jàng saar yu àgg ku dalul doo mën a rukkoo rukkoo bu àgg ku dalul doo mën a sujjóot sujjóot bu àgg ku dalul doo mën a taxaw kon lan mooy jur jàmm ah al istiqraar loolu ngeen di wax stabilité mooy jur jàmm bu jàmm amee bu stabilité amee rek jàmm am bu jàmm amee développement mooy fii ak stabilité amul dañuy ñaan ba sonn waaye du am kon yàlla ñu yàlla defal loolu mu jural ñu jàmm joo xam ne ji day jur ne yàlla jur barke boo xam ne bii danañu am lu ñu am doyloo ko yàlla nañ ko yàlla defal kan mooy Seydina Muhammad bu ngeen ba laajee kon sama laaj dootul tekki dara kan mooy alaaji Malick ah xam yonent bi ak xam alaaji Malick bu ci gën a war xam yonent bi xam yonent bi xam say waajur bu ci gën a war xam yonent bi xam yonent bi moo gën a war te ñun ku fi xam yonent bi te suñuy doom yépp xam nañu Bob Marley xam nañu ci kiñ ca kañ xam nañu ci kuñ ca kañ mais kenn xamu ci Seydina Muhammad tey ku ci ku ko trouvé di nga am billet Màkka di nga am tel di nga am tel du bari ñu koy trouvé ndax ci tànt rek lañ koy fore nii comme li ma fi waxoon ba fan yëpp di passé benn waay bu déggoon may wax rek mu jox ma billet Màkka ak xaalis ni ma ku koo gis mu def li ngay wax rek jox ko billet bi man dinaa ko garanti dund këram ba keroog muy dellu si teraanga bu fa am maa koy def ma ne ko lan la mu ne ku mën a julli ñaari ràkk fekk boobu fan yi yépp maa ngi ciy waxtaan ku mën a julli ñaari ràkk yow rek ñu jox la billet màkk boobu wala boo ku ko mës a def yow rek ñu jox la ko wala ku mës a julli safa witr yow rek ñu jox la ko ku ci mës a julli ku ci mës julli rek ñaari rakk fekk yow rek yaa ko julli yàkkan te amul tolérance ci kenn mënoo muñal kenn mënoo jëflante kenn bëggoo kenn te ñëpp a ngeeg yow ci biir jàkka ji te foo waxee ni iyaaka boo ci tege wa iyaaka ihdi nga dem ba ci asalaamu alay naa ngay génn ci julli gi looy wax asalaamu foo bàyyi sa bopp bokkatu la jox nga leen ko toog mais kon ana jullit ci réew mi ana jullit ci réew mi mbokk yi ngay julli te li ngay julli yépp nga dajale waat ko yëkkati ko teg ko ci loxol nit ñi ñi leen luy jàmm na dal ci yéen mais luy safaan naa dal ci sama kaw mbokk yépp ay wëlbati ko waat ni la déedéet ñun ñëpp nañu ànd nekk benn nga génn ci julli gi koo doon waxal yàlla wax ak yàlla ba pare génn respecté woo li nga wax ak yàlla kan ngay respecté di waxam te fi mu toll di ay jullit rekk fi toog waaye ci sunu biir ñu ngi xoolante am na ñoo xam ne ñuy nàngam lañu am na ñoo xam ne ñu nàngam lañu te penc mii di pencum Seydina Muhammad ñu dund ko ba kañ jàkkay murit jàkkay tijaan jàkkay xaadir jàkkay laayeen jàkkay jàkkay ibaadu jàkkay jàkkay te wa anna al <laughs> moo jakkay ken yi kenn dematu ci legi nañ leen jaamu yàlla te yàlla tax serigne si momu ñu ñun ñu royloo yonent bi kuy jaamu yàlla jaamul ku am kula xamal nak te xamal la yàlla xol rek xol rek ngay top nit ko xamul te yàlla dafa wax ni fa'rifuni qabla xam len ma avant ngeen may fa ilam ta'rifuni fa kayfa bu ngeen ma xamul nan la ngeen may jaamu teew sëriñ bi nga yaakaar bët rek nga koy teg doo ko xam mukk doo ko gis mukk te lu mu la wax nga def loolu yàlla tere nga bañ Sénégal a ngoob nii la ñuy dundi ñun lu yàlla wax nga teg fële waaye lu sëriñ bi wax nga def jar na laa dugg ci oto aju ca kaw sax aju ca kaw te risque la di dem kër sëriñ wala sa sëriñ dem tax nga yéeg ci oto yéeg ca kaw bu oto bi freiné rek taqu anfusakum wa ahlikum nara nit du xaru te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw yanu risala rahmatan lil alamin yonent bi dafa ñëw pour nekk yermane pour ñëpp waaye ñu ne ngay dem Tiwaawan nag jël oto sarse ko ba mu fees def lu ëpp mais lu la ca dal yow sa sa xam nga ni lekk lekk ba lekk ba suur daggan na bu ko defee na yàlla ñu yàlla jàppale ci yonent bi lañuy waxtaan yonent bi ñuy waxtaan nag yàlla yónniwu ko pour juddu yónniwu ko pour taar yónniwu ko pour dan dafa ni innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq yàlla daf ma yónni pour ma mottali tedd ngay jikko yi waxoon naa ñu bari danañ ci waxtaan pour euh, xam nga nañ dem daal ba ca kanam am mbégte nag tey mu réy am mbégte mu réy ci fi ñu toll ñun ñi di ko dund li ñu toll di ko dund ndax ñun bokk nañu wala bokkuñu wala dañu bokk ci tur te bokkuñu ci jëf ndax Sénégal bu ñu waxee yow ci wàllu théorie nga jommi waaye pratique alquran a ngi nii toujours dañ koy jàng dañ ko jàngal di ko jàngal ba jàngal ko ko sàcc au lieu yàlla ni faqtaaw ñu ne faxsilu bindal la aaya boo xam ne boo ko diwee ci sa loxo ñu tudd sax sàcc nga te yow sëriñ bi koy julli <laughs> astaghfirullah alazim yàlla ñu yàlla defal tawfiq ñun daal suñu bég te tey mënuñu ko wax kontaan nañu lool yàlla yàlla kontaan temps nag pour ñu waxtaan yonent bi yàlla daf ko yónni li tazakuri wa tazkiri mu fàttaliku fàttale dafay fàttaliku ci boppam fàttali nit ñi loolu rek la waaye li fi toog yépp ay doomi soxna la yoo xam ne ku ngeen ci joxoon waxtaan wi mu waxtaan ko waaye bëggal ñu jàmm moo tax ngeen jëlee ñu tiwaawan ba fii waaye doomu soxna moom pour fii ci jataay bi mu waxtaan yonent bi yomb na lool te nag yonent bi lu ci waay wax bu leen woy lu wax jërëy woy du mawtul fen gu ne yaa fi gënit yaa gënit ku du la fa xaqan xiira e eh, wallaahi est-ce que sëñ Hadi Touré ko wax lu nit wax ci yonent bi rek lu dul yàlla la du fen nekk yàlla mukk nag kon bo demee ci alquran yàlla ngi wax sayyidna muhammad naan ko wa dhakkir fàttalil fa inna dhikra tanfau almuminin man hum almuminun yàlla dafa ne yonent bi fàttalil fàttali dana jëriñ képp ku gëm yàlla kan mooy ñan ñooy ñi gëm yàlla yàlla sitiyee na ko ca suuratul anfaal ca bopp saar wa mu mel ni yàlla dañ ko posé question mu ne in kuntum muminin mu mel ni dañ ko ni waaw yàlla ñan ñoo jullit mu ne innamal muminuuna alladina ida dukira allahu wajilat wa ida tuliyat alayhim wa ayatuhu zaadathum wa ala rabbihim yatawakkaluun nga topp ca nag ba aaya ba jeex mu ne ulaika humul muminuuna xaqan lahum ku bëgg xam ndax yow ci jullit yi ci cadre jullit yi nga bokk war nga ko xam ku bëgg xam ni nag ci muslim dong ci nga bokk war nga ko mën a xam nangu nga ni yàlla am na waaye li yàlla santaane yépp doo ci def dara xaalatil aaraabu qul lam tuuminu walakin qulu aslam na nangu nañu waaye waaye waaye kon ñu ngi ñu ngi nuyu ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko wax ni ko jullit jullit jullit mooy ki nga xam ni mooy jëriñoo fàttali mooy jëriñoo alquran تنين جن بالمحق بوكي سنو جرينو القرآن موي نيانيكو موي جوليكو واي جيفيكو غيستو ما بن بروم كير بو تي دالو تي القرآن ديف اور ريك دالو تي القرآن اتي سي سبوب ولا غيس نين كو في ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الدوغن ويو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون كافرون ومن ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم افحكم الجاهليه ومن احسن من الله حكما ايوه هذا هو جلد du fi teggi mukk alquran di àttewoo ji leneen jullit bu ko defit yaa ngi ci erreur jullit du bàyyi di wuti benen atte budul alquran di ci sukkandiku doog jullit kenn mun la tudde julit ci alquran bok ndax dañ wax ni wa idha qala allah fala kalama bu yàlla waxe amatul ben wax bu wara jib bu yàlla atté amatul ben atte bu wara jib bu yàlla namé wa idha arada allah fara iradat li ku dem ci suratul hujurat di ko fa fek xoola rek ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasulih ci ahkam yeeg ci yep واتقوا الله إن الله سميع عليم متغات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط وأنتم لا تشعرون تجيو دغلو ات كنن مونيو قنل دغلو ات سيدنا محمد تي تبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى yonent bi du wax mukk ci bànneex lu mu wax rek noonu la ko yàlla bëgge te te kenn gisatu fi jikkoy jullit fu ngeen ko gis rekk wax leen ma kenn gisatu fi jikkoy walla fu ngeen ko gis wax leen ma ngeen baal ma xàq nag ci wax ji dañu toll ci jamono boo xam ni il faut ñu waxe nii ndax jullit ci boppam moo fi amatul jullit du fen mukk te jullit yi te jullit yi Ah, du ngeen wuyu jullit du fente jullit yi li ma taquluuna ah inda allahi an taqulu ma la tafaalu jullit ñaar du ko def jullit du fen jullit du wor lan mooy fen wax lu du dëgg du fen buutaan lañ ko tuddee nettali lu sa yoon nekkul te kenn laa la ko mooy fen ولا تقف ما ليس لك به علم إن وال وال كل أولئك كان عنه أيوة هذا هو سين باب عبد العزيز مسلم وعد سين بابا كان بين بيس سين ما قلنا من كان يجي توك بيو واحد بيو واحد تانك واحد يباري لو من سين بابا كان لقين دي واحد ñu ne papa dañ mu ne déedéet kay leen ma wax leen wax kat dafa am ñeenti tànk yàlla na fekk yow mi koy wax yaa ko war a wax la ngay wax yàlla nay loola fa nga koy waxee yàlla ña ngi koy waxal yàlla nay seen boroom nee na wax bu génnee fi fen la nii lañu ko waxe keroog waaye foo dem yóbbu fa waxu jaamur fa koy yóbbu du foofa ña ngi koy waxal du ñoom yow bi koy wax doo ko war loo ko wax mais fan la sekkere nekkati ci réew foo fo ku lu way dégg rek nettali ji penc yéeg yépp loola ko yàq tooge rek te nag waqad nuzila alaykum fi lkitaabi an ida samiatum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqaadu kii jëw ak kii déglu jëw wala kii fen ak kii déglu fen ku ci yées kii dégloo yées bu amuloon kii déglu kenn du fen kenn du jëw kenn du xaste وقد نزل من لا يلوخ أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقبل توك جوجل مدام باتي سورة الأنعام من وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين بو فكي دا فاتي با توك نيل بريك جوج ديم تا جيغلو نك تا خمغا ماك ني كوتي مسا ديغ جيو ديم جابي جاب ني سا جاب توج نابلو تاك لا نابلو تاك لا خاي ليغي gaa yi dañuy xalaat sax di maye dañuy xalaat di maye amul dara lu ñuy wax lu taxaw amul dara lu te te te li ma gën a yéem ci senegal mooy lu ñuy tuddee kersa fu ngeen ko gis ah fu ngeen ko gis amatul fenn moo tax gis nga sama mbokk yi léeg-léeg damay bég ci ñoom xama ñoom mag ñi du ñu wax nit fenn nga mag ñi duñu wax mukk nit fen nga ak lu mu fen fañ dañ naan ko wax nga sa dëgg wax nga sa dëgg nag ak wax nga dëgg du du benn moom la sama mbokki tukkulóor daan xaali goonga ma xaali goonga yee xaali goonga ma wanaa wax nga sa dëgg ak wax nga dëgg du benn ñun kañ ñooy wax mu nit taxaw ba pare nga ni ko fen nga loolu mag ñi daawuñu ko def dañ naan la kat wax nga sa dëgg bu ko defee nag nga téye sa lan yi nga xam ni wax nga sa dëgg baal ma baal ma baal ma te xam nga xam nga képp kuy jëw nit Mamour Gueye mu nga dëkk ca cil mu nga dëkk ca boori cil ma xam mu nekk Tiwaawan ñëpp jàppe ko dof ma yëg ni kii bu dee dugg si ci jàkka ji day dem ca palaas ba ñuy jàppe sangu fa raxas mbubam ba mu set weer ko bu pare sol ko jàpp dugg ci jàkka ji normal ba benn bis rek ma yëg ni ñu ne du lekk lu mu xamul fu mu jóge ma jël ko ba ma ni ko man daal tey dama bëggoon ñu waxtaan mu ne ma ah, wàññiwul dara de ma ni ko itam sama dépense tey Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz moo ma ko may nee na ci jagsaaw la ko jële mu ne ah, loolu di mën naa ko lekk te nee nañu dof la waaye du manqué fajar du manqué benn waxtu bu duggee ci biir jàkka ji correct normal bu génnee doo ko ñemee pour rek nit ñi libéré ko ñuy waxtaan ba seeg ma ne ko man di dama bëggoon nga may ma ma enregistré wax ci mu ne ma wàññiwul dara ma ne ko bismillah na nga tudd mu ne ma ah Mahmoud de lañ may wax xaw ma nag ci yàlla xaw ma ci nit ñi Mahmoud mooy ku ñu ku ñu sant ku ñu gërëm mu ne xamul nag ci yàllaa ko gërëm xamul nit ñee ko gërëm mu ne ma far sax ñu yàq tur wi di ma wax Mamour ñuy waxtaan di waxtaan ba agsi ci benn bi rek ma ne ko Mamour dama bëggoon nga dégg mu ne ma sëñ Babacar yàlla sonalul kenn ku son rek yaa sonal sa bopp neen wax yàlla ci nopp lay tàbbi dem ci xol mbaa nga génne ko mune way yag nga dem Dakar yobbu say bagage ñu may la fa bagage mu diesel la way yalla diisalul kenn wax ak ban wax ak ban wax ak ban ba ñu aksi ci alaaji abdou fekk laaj na ko mak ñeeg sun mam serigne touba ak ñom ñep laaj na kenn ku nekk mu wax ma ci ñom ma laaj ko serigne abdou mune ma waxtaan la ñu bëgg yaax mune ma ah, lu kay yaax baniko ah, lu kay yaax mune ma damay jëw maniko ban wax lo ma lo ban mune ma deet lu baax li est-ce que moom bëgg na ma wax ko li ma xam ci moom wala déet demal nga tàgg ko comme que mu ngi dund bu la mayee boo wax ci moom bu la mayul du wax ñun nag ñun nag te xooleen julli ndax dafa bari lu yàq dafa bari lu yàqal jullit euh, xam nga atadruna manil muflis المفلس فينا من لا درهم له خم جن كان مو نياك ولا بان بانك فايت ولا كان مو اماتول دار غاني نيكو يونت بي موكو دون لا غاني نيكو كو درم مون ديدن المفلس دغ دغ من ياتي بصلاه مقبوله وزكاه مقبول وحج وصوم يب مقبول عند الله ولكنه شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا اللي جولي يالا نانغو koor asaka sa yëpp yàlla nangu waaye sa làmmiñ bi teggi woo ko ci deru gor yi yàlla day wiiri lépp loo mës a def ci compte yooyu kon mbokk yi li ñu soxla dëgg-dëgg mooy ñu seetal suñu bopp dellu siwaat rek la waat suñu bopp bu baax a baax te ñun yàlla royloowuñu kenn ku dul sayyiduna muhammad yonent bi la ñu war a jéem di roy ndax jikko moom laa bëggoon a waxtaane tey waaye ma xalaas خلاص دعيت دسول ببرك أحبائي سيدنا محمد جميع أحبائي سيدنا محمد مولا ما خمني بسب سيدنا محمد ركلا تيت نعين يان جوجنا تخاو ببرك بقي بايلن جلدي جن بق أنا نك بن دعلا كأنه كونك أكس طريقة كأنه كونك أكس جبلوا أي واي ين لا يلا بوالة شيء شيء دكبي ين لا يلا بوالة شيء كنبي دلني كتير دودي والسلام عليكم